dañu jàpp ni euh, euh, béy mbéyum dër mbéy rek de manière générale euh, dafa am solo ñu war a sax ci di ko dooleel ci Sénégal ba bés ñëw balaa yàgg ñu jot suñu bopp ci wàllu dund mooy di bay li ñuy dunde te di dunde li ñuy béy loolu la ñu jàpp ni mënul nekk bu fekkee ne béykat yi seen bopp ak ñi jaay engrais matériel ak jiw ak ñi koy transporté bu ñore ak ñi koy jaay ci marché bi ak ñi koy soppali ak ñi ko soxlaa denc di ko jaay ndànk-ndànk ba mu jeex bu dee yëgoowuñu jafe-jafe day am kon daanaka day tax ba mbéyum làmbatu ci la ñuy nekk. mooy naa béy soble ren parce que daaw mbay njaay mi ma dendal lu nekk la am ci soble kon naa ci dugg ren xam nga loolu nekkul lu lu wér maanaam euh, euh, euh, solo bi ak lay bi war naa gën a xóot loolu. dinañu xam lu ñu soxla ci misaal ci soble ak pomme de terre ndax nag kuréel bi daje fii tey ñaari xeetu mbay yooyu moo ko tax a ñu koy wax kuréel boobu ñu koy wax plateforme. d'innovation lu ko tax a jóg mooy ñoo ñu ma tudd ñëpp nga xam ne ku nekk bu wéetee ci ruxam day am ay jafe-jafe dañoo bëgg lënkale leen bokk na ci innovation yi ñu war a indi ci mbéy mi maanaam coppite yu bees ak dëppale kook jamono yi ñu war a def ci mbéy mi bokk na ci ni ñu war a gën a organiser béykat seen biir ba ñu mën a gën a jëriñu seen mbéy loolu nag ñu ne ñu koy defee projet Proval nga xam ne ñu ngi profit gërëm gouvernement Sénégal. ak ministère de l'agriculture nga xam ne moom moo ko yëkkati ak coordonnateur bi mu ne dama leen di jàppale yéen ñi mu doon seen liggéey yéen ñan mooy direction horticulture bi ma jiite. ñu ne waaye du ngeen ci wet dañ leen ci boole ak ISRA ndax sécurité muy kaaraange ki ko am mooy ki am kaaraange ci wàllu dund ndax bu ñu amul kaaraange ci wàllu dund fàttali naa fii ne 2008 amoon na fi lu ñuy wax émeute de la fin mooy ñi xiif song ñu yor. Euh, li ñuy wax ci li war di wax ne ki la jox nga lekk bëggul nga dee waxin la loolu li mu tekki mooy il faut nit ki lekk kon na Sénégalais yi xam ni pexe amul lu dul béy lu ñuy dundee te ku nekk mën ngaa béy sa ëttu kër sax ñun ñu ngi fay béyloo nit ñi ñuy wax micro jardinage. segem ci table nga mën a béy ba ci ay hectares kon lay jeex na